Heavy Waves.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 kay teg ci ne ko nag faru rab boobu mën na laa yóbbu ba doom doom waaye nag mën naa laa faaj noonu la ñuy tiitalee nit ñi de ne nag garab gi ma lay fajee ab garab la joo xam ni su ma la ko joxee sa kanam nga koy def xale bu jigéen bi dal di nangu naka noonu ci la ko sëriñ bi lalalee ñaari palan waaye deuxième plan bee garaaw ndax ci deuxième plan boobu la sëriñ bi jaar dal di violer xale bi pëttalaw xale bu jigéen bi nag gannaaw bi mu ximli ndax daf ne sëriñ bi daf ko liggéey ba xamatul fu mu nekk ci la demee ca commissariat bu Rufisque dal di fay déposer plainte sëriñ bi ñu teg ko loxo ci kanamu enquêteurs yi nag sëriñ bi nangu na lépp li ko ndaw si di tuumaal yaa bon waaye nag nee na ak loolu yëpp violé wul xale bi moo tax ma ne jigéen ñi bàyyi leen sëriñ yi ngeen di dem danañ leen rey de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax la xew ca immeuble Kébé doy na waar ab am d'affaire daal la ñu ne moo fa jël pistolet teg ci nopp bi door bal daal di xaaru est-ce que waa ji nee nañu conseil spécial la woon ci médiateur de la république pour le commerce et l'industrie ci borom daraja bu mag waaye kii lu ko tax xaru waa ji am na jabaram ñetti doom moom daal dugg ci néegam la def jël pistolet teg ci nopp bi ne tell boppam bal xaru dal di fay yem nee nañu bi muy waaj a def loolu sax benn membre ci famille bi doon na ko jéem a sauver waaye bal la ko dóor ci tànk <laughs> waay waay waay waay <laughs> waay waay cey mim réew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax soxna Nafisatu Géeju mi ñu ne woon daa xaru ca liberté 6 extension tàndr boppam am na leneen lu ci bees ndax soxna si gannaaw bi ñu defee autopsie dañoo gis ne soxna si dañ ko rey ba pare dal di simuler xaru bi pëtalow moo tax ba yëf yoo amee jëkkëram ji di visil dañu ko tegoon loxo waaye gannaaw li ci amaat nag xaritu jëkkër bi nga xam ne bi police yi ñëwee moo doon ànd ak ñoom doon waat naan li mu njort mooy soxna si daa tabe ci kaw moom it teg nañ ko loxo ak beneen waay <laughs> ma ne ko nag lii de li muy am bari na réew mi dañu naan nit xaru na rek wala ñu fekk mu pandru rek ñu daal di jël ne daa xaru fekk yu ni mel mën naa am ndax réew mi dañoo bëri pexe waaye nag fii mooy Sénégal de suñu policiers yi <laughs> loo wax ñu suul mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz